xam-xam di jàngalekat di yarekat jërul ñu leen xamal moom mooy kan kon xam naa ne dañ koy jox kàddu gi ñu dugg ci tomb bi di ko ñaanal suñu boroom mu defal ko tawfeex bañ mën a jariñoo ci li mu fas yéene ratoon tey bismillah أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant yàlla di julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyoob lislaam bi di jiital ci nuyoo bi di ziyaara kilifaak dëkk bi a cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom mu dolli koo sàmm dolli koo may ak wér ak fan wu gudd lool di bu baax mboolem ñi yëngu ci daayira bi di muqaddimatul xidma di taxawee jotaay yu am solo yi ci weer wu màgg wi di weeru koor waaye ci barab bu màgg bi xam ne barab du ko gën a màgg ci barab yi muy néegub yàlla di leen sant bu baax ci occasion bi ñu may dañu mën a toog ci jotaay bi tey fas yéene ubbi benn bunt ci bunti xam-xam yi ngir fàttaliku ngir fàttale ngir laabire ba balaa ñu fiy jógee mu leer ci ñun ñépp lan la lislaam rëdd lan la lislaam gërëm ak lan lay wattandikuloo ci tomb bi nga xam ne moom lañ war a waxtaanee tey insha allah du ñu guddal ci nuyoo bi ak ziar yi dañuy ñëw rekk ci bunt bi ñu war a ubbi tey muy al ijaaratu wa axkaamuha fi l islaam balaa ñuy ñëw ci lan mooy ijaara lan mooy ay xeetam lan mooy àtteem ci lislaam ak charte yi ci lislaam teg dañuy njëkk fàttali ne saa bu ñuy wax ci xam-xam masala moo tudd rek dafa am dëkkuwaay boo ko bëggee gëstu fa nga koy seeti masalan xam-xam bu doon ak garab la garab la bu bari ay bànqaas bànqaas yi mooy fànn yu wuute yi bànqaas bu ne rek benn fànn la ci fànni xam-xam yi xeeti xam-xam yépp nag waaye bànqaas bu ne am na ay car yu bari am na ay xob am na ay meññet muy ay buntu ak ay tomb ci biir fànn ba bu la neexee nga misaal ko ne xam-xam am réew la bu xam-xam nekkee am réew fànn yu wuute yi fànn bu ci nekk ab dëkk la ci biir réew mi masalan réew la mu bari ay dëkk am na dëkk boo xam ne mooy dëkku xam-xami diine looy gëstu ci xam-xamu diine rek fa nga jëm am dëkk boo xam ne mooy xam-xamu laneen noonu nga koy toppee ba xeetu xam-xam yi jeex bunt bii ñu war a waxtaanee tey nag ku koy gëstu ku koy seeti da ngay dem ca dëkk ba xam yi diine yi daje xam-xami diine bari na ulumul quraan añ ci biir ulumul xadiis añ ci biir taarix a ci biir siraa ngi ci fiq a ngi ci tasawuf a ci usul a ci ak fànn yu wuute waaye dëkk bi boolante xam-xam yépp moom mooy dëkk bi dajale xam-xami diine yi ci biir dëkk bi am na ay kër kër gi ñu war a ñëw tey mooy alfiq alfiqul islaami ndax tomb bii ñu bëgg a waxtaanee buñ ko toppee ba fekk ko ci dëkkub xam-xami diine yi ci ban kër la ne ci biir dëkk bi mooy al kërug alfiqul islaami fiq islaami nag bu dee ak kër la da ngay wax ne kër la bu am ñaari kees ñaari appartement yu mag benn bi mooy fiqhul ibaadaat beneen bi di fiqhu al muamalaat kon buñ duggee ci këru fiq dañuy dem ci kees gi nga xam ne fa la ñuy fekk al muamalaat muy jëflante yi am ci diggante nit ñi ndax tomb bi ñuy waxtaanee bañ ko toppee mu bokk ci xam-xami diine ban xam-xam ci xam-xami diine mu delloo ñi ci xam-xamu fiq ban xaaj ci xam-xami fiq xaaj bi jàngalee muamalaat yi muy jëflante yi am ci diggante doomu adama yi ndax ni ngeen ko xamee lislaam li ko wuutale ak diine yu bari ya ko jiitu woon mooy diine yi dañ daan jàngale lii xew ci diggante jaam bi ak boroomam lislaam nag ni jàngalee diggante jaam bi ak yàlla boroomam ni mu jàngalee julleeg woor ak xaj ak azaka ak noonu la leeralee mbooleem jëflante yi nga xam ne doomu adama soxla woon di ko jëflante ci kaw suuf kon yegg si nañ ci almuamalaat muy jëflante yi mën ngaa wax ne ay ay néeg yu bare fa nekk benn biñ fiy dugg tey nag mooy mooy al wa ahkaamuha lan mooy ijaara ci njëlbeen gi dafay baax lool ñu xam bu ñu waxee ijaara ndax fuqahaaw yi ak jàngalekat yépp dañoo am seeni baat mbir mu ne ak nañ koy tudde kon tomb bii fuqahaaw yi ci seen istilaax tuddee ko ijaara lan mooy ijaara ijaara ci luga arabiya nu baat bi sax nim nangoo ijaara moo gën a siiw gën a fasaxa waaye nangu na it ajaaraak ujaara mi ngi bàyyee ko ci ajru gii firi ak fay istilaaxan bu ko boroom xam-xami fiq waxee lan lañ ci dublu jëflante la bu am diggante ñaari nit maanaam xeet la ci jaay ak jënd bokkewul ak jaay nag danañ ci ñëw jënd walla jaay boo ko defee li ngay jënd jëmm la joo xam ne day tuxu ci moomeelu ka ko moomoon jaay ko ñëw ci sa moomeel yow mi jënd ijaara yaa ngi jënd waaye tekkiwul ne jëmmu ja day toxoo ca kala ñëw ci sa moomeel yow mi jënd ndax xam-xamu jëmmu ji walla man-manam ab liggéeyam loolu rekk nga jënd ci moom kon bokkeewul ak bayo bu ñu xamlee jaay dañ naan mooy tamliku zaat boo jëndee rek jën jëmm ji nga jënd da koy moom ijaara nag dañ koy xamle ne mooy tamliku manfaa tamliku manfaatin maaluma bi iwadin maalum maanaam njariñ loo xam ne jëmm ngi nii mën naa jariñ nga soxlawoo njariñ la jëmm ji nag daaj ji ñëw mën naa doon jëmmi nit mën naa doon ab jumtukaay bu nit di jëfandikoo waaye luñ mën a jariñoo la nga wax ak borom ba juboo ci jariñoo njariñal jëmm ji te delloo ko yëfam loolu ci gàttal moom la ñuy tuddee al ijaara kon bokkul ak jaay bokkul ak yeneen xeeti pas-pas yu bari yum nirool ijaara bokkul ak ak ak may wala able wala wala sarax ak yu mel noonu yooyu nga xam ne dangay ngay joxe te laajoo dara ijaara dangay ngay joxe jël moo tax ci gàttal boroom xam-xam yi xamle nañ ko xam leen yu wuute bokk na ci xamle yi ci gën a gàtt te gën caa leer lan mooy ijaara aqdu muawadatin ala tamliki manafia maalumatin bi iwadin maalum benn contrat la benn fas-fas boo xam ne ñaar koy fas ngir weccoo ku ne jox sa morom yow mii jël njariñal jëmm ji moom moo jëm si ci yow waaye bu jëmm jéegi noppam kon ci loolu ci la xamee ne ijaara xeet la ci njaay waaye am na lu ñu tuddee alkiraawu ba tey ci làmmiñu fuqahaaw yi ci xalimay fuqahaaw yi kiraaw mooy muy luye moom ijaara mi benn la dañuy wax ijaara jublu ci kiraa wala ñu jub wax kiraa jublu ci ijaara waaye danañ leen tàqale ñoom ñaar ci nii may bëgg a waxee saa bu ñuy luye loo xam ne lu dul tuxu la lu mel ni suuf lu mel ni ak kër wala ay tool wala barab ci suuf buñ soxlaa jariñoo ci lu mën a doon lu lislaam daganal ñu jariñoo ko ca lu mel noonu dañ ciy jëfandikoo baatu kiraa bu ñuy luye ab waruwaayit moo xam gaal guy daw ca kaw géej ga wala daaba juy daw ci kaw suuf waruwaay yooyu yépp fuqahaaw yi kiraaw lañ ciy jëfandikoo buñ soxlaa njariñal jëmmi nit wala laneen lu bokk ak li ñu wax ñu jëfandikoo baatu ijaara kon ci gàttal ijaara ak kiraaw ñaari baat yi léeg la dañuy wuutuwante bu ci ne di tegtale maanaa moroomam waaye buñ seetlu dañuy fekk ne ijaara moo gën a yaatu moo ëmb kiraaw am na ci seen peggit lu ñu tuddee jaala wala joxlu xeet la ci ijaara incha allahu danañ ca ñëw ca kanam ijaara mii nag pour ñu xam atteem ci sharia islamiya bala ñoo ñëw ci ay ponkam ak ay xeetam ak li ci dagan ak li ci xaraam dañuy njëkkee xam atteem ijaara ci sharia islamiya loolu buñ ci gëstoo dañuy gis ne mboolem boroom xam-xam yi ci mboolem mbir yi dëppoo nañ ci ne ijaara lu dagan la ñenn ñu néew ñoo ci wuute te seen wuute boobu kenn bàyyiwut ko xel ndax ijaara mbir la mu mënta ñàkk àdduna bi mënta continuer di dox te ijaara amul te buñ jàngee ijaara mooy lan ba mu leer rek danañ xam ne lu mënta ñàkk la ci kaw suuf kon ci gàttal ijaara dagan na ci diine lislaam nag saa buñ ne nangam dagan na wala xaraam na lan mooy tegtale ak daganam wala lan mooy tegtale ak xaraamam dañuy dellu ci alquranul karim fekk borom bi di ñu nettali ñaari yonantu ci ay yonantam alayhim assalaam muy yonantu yàlla Muusa ak yonantu yàlla Shuaybu biñ doxee ba daje ñoom ñaar waxtaan bokk na ci lañ jëflante bu ne Muusa dangay toog fii ma jox sama gàtt yi nga di ma sàmmal wax ko lam koy fay ñoom ñaar ñu juboo ci loolu loolu dañ ci jàngee ne ndeke ijaara lu yàgg la ci kaw suuf sharia ya ñu jiitoon xamoon nañ ko daa nañ ko def alquran nett li ñu ko muy lu sax kon ca sharia ya jiitu woon te indi lu ñu lenn luy wane ne luñ folli la wala luñ tere la loolu nekk sharia ci islaam ba tey waaye danañ fekkit ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadis yuy tegtalee daganuk ijaara tàmbaleel ca keroog ba yonent di gàddaay war a jóge màkk dem madina ànd ak sayiduna abu bakrin dañoo luyee benn waay dañoo wut koo xam ne ku xam àll bi xam yoon yi xam fi mu leen di jaarale bañ mën a yegg madina ci jàmm ñu fay ko ngir mu defal leen liggéey boobu loolu ijaara la kon sallallahu alayhi wa sallam ci boppam da koo jëfee ñu fekkaat ci biir xadis yonent bi di wax ne ñett ngi nii ci xeet bi ëllëg yowmal qiyaamati bu leen yàlla taxawalee ñu waral a layoo man lañuy ñuy jàkkaar lool man maay ñëw di di layoo ak ñoom te ku ne xam na ne ku layoo sab yonantu loo mën a wax dana la yey te bu la yeyee ca safaan ba nga jëm xadis boobu ñett ñim mu tudd euh, kenn ki mooy ki ñu jiiteel mooy yow mi wax ak nit liggéeyal ma nangam ma fay la ba ngeen juboo mu def liggéey ba na ko sàkkoo woon na nga ko ko sante woon nga bañ koo fay la nga ko war a fay kooku sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg yowmal xiyaamati du la bàyyi ngay dagg sante kooku nga liggéeyaloon kooku liggéeyaloon la waaye moom moom sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moom ngay layoon doy ñu xam àtteeb ijaara ci sharia islaamiya mooy lu dagan la ndax alquran tale na ko sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tegtale na ko mboolem borom xam-xam yi niñ ko waxee ijmaaw nañ te ku jàng usul xam ijmaa day mel ni bu alquran waxee àtte bu leer ijmaa amatul place bu sunna indee àtte bu leer ijmaa amatul place lu tax ñu naan alquran wax na sunna wax na muy lu leer àtte yu sax ñu tekki ne borom xam-xam yi daje nañ ci li muy tekki mooy aay bi lii mu jàngale ñu tegtaloote ne ijaara lu dagan la benn borom xam-xam wute wu ci xadis bi lii mu jàngale tegtale daganuk ijaara borom xam-xam yi wuute ci déggi xadis bi wala ci dégginu aaya bi ijmaa ci gannaaw alquran ak sunna loolu rek lay tekki kon xeetu yonent yàlla muhammad ci mboolem njir yi dëppoo nañ ci ne ijaara lu dagan la waaye buñ bàyyi woon sax sharia dellu rek ci dundu doomu aadama jëfandikoo xel dañuy fekk ne ijaara mënta def lu dul dagan ndax daa doon lu mënta ñàkk ngir dund gi mën a continuer di dox ci anam gu jub ijaara nag pas-pas la boo xam ne ñaar ñu ci waxtaan ba juboo ba soobu ci liggéey ba nañ xam ne aqdun laazim la aqdun laazim la aqdun laazim mooy bañ jubooyee ba liggéey ba tàmbali kenn ci ñoom ñaar amul sañ-sañu di dellu ginaaw te contrat ba jeexul wala ngànt lu leer luy maye ñu dellu ginnaaw rot saa ñaar waxee ba juboo ci liggéeyal ma lii ma fay la lii ba liggéey ba tàmbali na ma kenn ci ñoom ñaar sañu la dellu gannaaw di bàyyi lu dul ngànt lu leer wala ñu xëtt charte ba la ñuy def daganul sharia war koo dindi lu feeg loolu amul rek contrat boobu dañ koo war a wéyal wala ku ca bëgg génn sañut lu dul rek waxtaan ak tam ko seqal ba jubóob moom mu may ko ñu bokk ci ñu bokk d'accord ñoom ñaar ngir mu génn ci contrat bi ginnaaw loolu léegi ñu xam arkaanul ijaara ponk yi tax luye dagan luye mën a am ci sharia islaamiya ponk bi ci njëkk mooy al aaqidaani mooy yow mii bëgg ku liggéeyal yow mii bëgg a jariñu ci otob jàmbur wala fasu jàmbur wala bagaasi jàmbur ak jàmbur bii bëgg liggéey wala bëgg a joxe ab jumtukaayam ngir keneen jariñoo ko yéen ñaar lañuy tuddee al aaqidaani faw ñaar ñi dañuy am mooy kii bëgg a luye ak ki muy luye ñaar ñooñu mënuñoo ñàkk ñoom ñaar ñi nag pour luye gi doon lu dagan doon lu wér faw dañuy melowoo ak tamyiz tamyiz mooy ràññe maanaam nit koo xam ne daa àndul ak sagoom moo xam daa màndi wala day ndaw ndaw lu ràññeegul ñooñu mënuñoo dugg ci contrat bu ni mel képp ku bëgg ku la liggéeyal nga waxtaan ak ndaw lu xamul dara ba jubóog moom na la wóor ne loolu nga jubóog moom du lu wér lislaam du ko nangu ndax ki nga ko seqal amagul ak tamyiis muy ak ràññee ki nga xam ne du ndawee waaye xelam moo fi nekkul moo xam daa am wér di xel wala daa am lu ko gaar ba xelam dem ci jamono jooju ku signé moom contrat bu jëm ci luye moo xam moom moo lay luye wala moom nga bëgg a liggéeyloo euh, contrat boobu it du doon bu wér ndax balaa muy wér al aaqidaani ñaar ñi koy fas kenn ku nekk ci ñoom ñaar day doon ku ràññee pas-pasu ijaara nag bu ñaar ñi ràññee xàmmee seetatuñ ci jullit la ak ku jullit balaa ñuy soobu ci biir tomb bi na leer fii ne jëflante gii nit ak nit ñoo ko xaajoo du mbirum diine moo tax yow jullit loo bëgg a liggéeylu ku dul jullit man ko doonte ay jullit a fi mën naa am sax man nañ ko waaye kee dul jullit moo ca gën a xarañ moo ko gën a man sañ nga koo liggéeyloo comme moom mi dul jullit lu mu bëgg a liggéeylu yow jullit nga man ko te du liggéey bu lislaam tere doone kii du jullit du mu ko liggéeyal aha sañ nga koo liggéeyal danañ ci ñëwaat charte yi tax nag contrat bi nekk lu mën a wéy gannaaw boo xamee ne ñaar ñi koy seq ñoom ñaar ñëpp dañoo ràññee nañ doon ay mukallaf kon ndaw lu ràññee am xel xàmmee waaye nag kàllafeegul kooku sañ naa waxtaan ak nit kooku liggéeyloo ko fay ko wala mu waxtaan ak kenn ñu liggéeyal ko moom ndaw li ngir mu fay pas-pas ba doon pas-pas bu wér waaye du doon pas-pas bu war maanaam bu neexee ay kilifaam moom ndaw li ñu ñëw firi contrat boobu mu signé ak yow comme nañ ko xamee woon ci buntam njaay ndaw lu matul mu kalaf bu demee ca marché ba wala ca bitig ba jënd wala mu jaay njaay mi wér na jënd mi wér na waaye nag warul warul mooy kilifaam bu neexee kilifaam mu ñëw firi njaay moomu bu dee dafa dugg ci contrat wu ab liggéey it bu neexee ay kilifaam ñu ñëw dindi ko ndax bu wéree it warul bokk na ci charte yi euh, ar rushdu kii am ak dexe ak matadi wala ab yàqkatu alal boo xam ne lam yor ci alal xamut na mu koy téye xamut na muy na mu koy jëfandikoo dëgg-dëgg nga xam ne lislaam da koy wutal kilifa gum ko booleel muy saytu ay mbiram balaa muy def dara ci alalam mu waxtaan moom ba mu jox ko ci ndigal safiwu bu mel noonu ku signé moom contrat wu liggéeyloo ko wala moom moo lay liggéeyloo ngir fay la bu dee moom moo la ngir fay la kilifaam sañ naa ñëw firi ko bu dee yow yaa koy liggéeyloo loolu moom yoonu kilifaam nekkut ca ndax liggéey boo xam ne dooleem la koy defee wala xam-xamam xelam moom moom safiwu sañ na caa soobu mu doon contrat bu wér doon contrat bu war bokk na ci coobarewu ñaar ñii signé contrat wu luwee kenn ñoom ñaar forcé wuñ ko ci coobare boppam ci teyu bakkanam lay dox kon charte bii njëkk ngir wala ponk bii njëkk ngir ijaara am ñaar ñu ko seq charte yaa yi noonu la ca jiitu mooy na doon ñaar ñu xàmmee ñaar ñu ràññee buñ xàmmee ràññee rek pas-pas ba bu ko laneen yàqul pas-pas ba wér na waaye nag pas-pasu jaay ak pas-pasu liggéeyal ma ma fay la pas-pasu jox ma sa nàngam bi ma fay la nàngam yooyu ak wér da cee doyul bu wéree ba noppi war da ciy topp war mooy ki ko seqal te mu am kilifa guy saytu mbiram bu ñëwee xool gis ne lu baax la mën na koo bàyyi mu continuer waaye bu gisee ne baaxul ci moom danga nga koo bëgg a nax sañ na ko firi beneen ponk muy assira mooy ñaar ñi war a signé contrat bi lañ waxtaane ñoom ñaar ba juboo ca loolu lislaam da koy bàyyi ak aada saa buñ jubooyee ci wax wala ci jëf wala ci aada luy tegtale ne juboo nañ ñoom ñaar amatu leen ci diine di wax beneen ponk ñetteelu ponk bi mooy njëg gi nga xam ne moom ngay fay jëmm ji nga bëgg a liggéeyloo njëg gi mboolem charte yi ñu chartoon ci njëg ci lu ñuy jaay ak lu ñuy joxe ngir jënd dara charte yooyu dañoo war dajewaat fii bokkoon na charte na doon lu laab na doon luñ mën a jariñoo njariñ lu sharia islamiya nangu na doon ñu xam yow mii fay xam nga li fay lan la mu leer fi yow ki ngay fay xam na li war a fay lan la na doon loo xam ne luñ mën a jël la jox borom waaye alal ju sànk wala alal ju dem mënuñ caa jot kenn sañu koo jaay comme kenn mënu koo joxe ngir jënd dara pas-pasu luye it bu dee lañ lay fayee alal ju sanku la ju réer wala loo xam ne borom bu la waree fay mënut koo teg sa loxo mënut la koo jox lislaam da koy tere bokk ca charte yi it lay fayee bu mu doon lu lu lu xaraam loo xam ne daganu la jaay ci islam comme nañ ko xamee woon ci buntam jaay beneen ponk beneen ponk te mooy bi ci ëpp solo mooy almahqudu alayhi moo tax ñuy waxtaanee moo tax ñu naan ijaara mahqud alayhi mooy yow mii luye lan nga bëgg ak kii nga bëgg fay ngir mu am lum la defal wala ngir mu jox la këram ngir mu jox la otoom ngir mu jox la jumtukaayam boo soxla loolu la ñu tuddee almahqudu alayhi wala almanfaa muy njariñ li nga xam ne moom ngay jënd ci moom moom am na ay charte bokk na ci charte yi na doon lu dagan kenn du luye lu xaraam lépp lu sharia tere rek nga xam ne jullit sañoo koo jëfandikoo yow jullit bi sañoo koo luye sañoo koo luye keneen lépp lu sharia xaraamal ci ab jullit mu def ko yow jullit nit du la fay ne la kaay defal ma ko masalan am na ñoo xam ne seen seen xam-xam ak seen xarala dafa màcc ci mën a ay film mën a bokk ci ay théâtre mën a def ay cinéma ak yu mel noonu léegi dañuy xool film bi lan lay jàngale ak yaw boo ci bokkee ban taxawaay lan mooy sa rôle ci biir film bi bu dee da kay def loo xam ne lislaam nanguwu ko wala maa ngi wax film bi waaye yóbbaaleel théâtre beeg yépp yu ñu yooyu yow jullit lañ jël nga war cee bokk lan nga fay def dañ lay takkal soxna ci biir théâtre bi kii sa soxna la nga sañ a wéet moom sañ a moom ci ay cër mu mel ni sa soxna la théâtre bu mel noonu contrat bu mel noonu ab jullit xaraam na ci moom ndax ñi ngi lay bëgg a liggéeyloo ci loo xam ne sa diine daganalut ko ci yow bu dee cinéma lañ koy tuddee bu dee film la bu dee théâtre la wala tut waneen tur wuñ ko mën a tuddee rek na la wóor ne lu dagan la wala benn waay moo la soxla ngir nga liggéeyal ko lan lan lan nga koy liggéeyal danga koy yettal ay xërëb da nga koy yettal ay xërëm wala da nga koy tabaxal ay xërëm mën naa am sax moom jaamukatu xërëm la li mu bëgg mooy ku ko defaral xërëm bu mu jaam yow jullit mën ngaa yet wala mën ngaa tabax lu ni mel mën nga koo defar nga defaral ko lu mu jaamu ji loolu lu xaraam la ab jullit du ko def foofu nag faw ñu leeral ne bëri na ci xeetu fowukaay ak aar yeeg yi way xarala yi di liggéey ci wet boobu yoo xam ne même buñ ko tuddeewul xërëm bu ko borom defaree ba mu sotti ab xërëm la jullit sañu koo liggéey rawat na di ko jaay rawat na di ko jënd di ko dugal ci biir këram xam ngeen ne euh, suura photo bi yonent bi sallallahu alayhi wa tere wax ne ñi koy def ëllëg yowmal xiyaamati yàlla bokk na ci la leen di bugalee taxawal leen da leen yéen doon niru niru sama bind gi lii ngeen defaroon defal leen ko roox loolu ku ne xam na ne mbugal lay tegtale waaye ñoom lott nañ ci defar roox moo tax jël ay bant di yett ay jëmmi nit wala jëmmi ay xayawaan yuy dund moo xam ay njanaaw la wala ay daaba la wala du bant buñ yett waaye lu ñuy tabax la tabax ay jëmmi nit tabax lépp lu am roox boo ko tabaxu it noo ko mën a liggéeyee ba man koo taxawal nii mu mel ni jëmm ju taxaw loolu loolu lu xaraam la loo xam ne ab jullit da ko war a ko waaye ku la jëloon kaay liggéeyal ma lu mel noonu ma fay la it xamal ne mi ngi luyee mi ngi mi ngi lay luyee ci loo xam ne lislaam du ko daganal ci yow lislaam du ko nangu maçon bi nga xam ne jullit la ku dul jullit jël ko bëgg koo tabaxloo ab église ki dul jullit wax naa léegi mbirum luyee moom ay contrat la dox diggante nit ak nit ku dul jullit sañ nga koo tabaxal barabu liggéeyukaayam wala këru dëkkuwaayam wala yeneen yi nit di jariñoo am maa la yoo xam ne mbirum diineem rek la comme ab église la bëgg ko koo ko tabaxal daganul ci jullit muy tabax église ngir ñu fay ko saa bu duggee ci contrat bu mel noonu mu ngi dugg ci contrat loué boo xam ne bokk na ci yi lislaam tere bokk na ci yi lislaam araamal ci moom ak bépp jaamukaay boo xam ne beneen diine bu bokk ak lislaam loola seen mbirum diine la nga xam ne mbirum diine rekk la te wóor la ne benn diine bi wér yàlla gërëm ko mooy lislaam ñi dul jullit mën ngaa jëflante ak ñoom ci buntu liggéey yu bari yu yaatu ci àdduna waaye lépp loo xam ne seen mbirum diine kese la bàyyee leen ko yow jullit bul ca bokk bul ca doon dara wala sax église bi taxaw ñu jël la yow jullit sa liggéey mooy lan yow yaay gardien bi yaay garde église bi wala yaa koy bale wala yaay taal làmp yi wala yaa koy décorer yaa koy taaral xeeti liggéey yu mel noonu dafa laal pas-pas ka ngay liggéeyal loola du du mbiri àdduna waaye mbiri diineem la loolu laa wax ne yow jullit bi waroo ko def ndax lislaam da koo tere ci yow daf la koo xaraamal Euh, beneen contrat boo xam ne bu xaraam la moom it yow jullit nga yaa xam ci biir réew mi wala beneen réew barab bii ngay liggéeyloo lan moo fii sa liggéey dañ lay liggéeyloo ci sàngara ca usine sàngara ba wala ca mbaam xuux ya ñaar yooyu lu tax ñu tudd ko day ñaar yoo xam ne lislaam da koo bàyyi xel soriloo ko jullit bi sibloo ko ko xaraamal jullit bi mu doon ci dara na ko ibnu abi zayd al xayrawaani tënkee woon ci risaalaam ba wa kullu shay'in min al xinziiri mbaam koox moom mayewuñ ci dara sa liggéey mooy yaay sam mbaam koox yi wala yaa leen di sang yaa leen di toppatoo wala yaay vétérinaire bi leen di faj wala yaay xontu yaa leen di jox dund rawat na yaay rendi yaay fees yaay jaay ndawal gi wala yaa koy togg wala yaay séddale xeetu contrat yu mel noonu yépp jullit da ko war a wat ndiku bu dee restaurant wala barab bu ni mel yaa nga fay liggéey ñoom dañuy liggéeyaale ci yu mel noonu te yow jullit bi sa liggéey laalu daraay mbaam xool mën ngaa wax la ngay def aayul dara nekkuti saa boo nammee laal mbaam xoox nag ak noo ko laalee rek ci sa liggéey bàyyil contrat boobu xam ne sa lislaam sa diine da koo lu mel noonu ngay wax ci sàngara bi nga xam ne yonent bi jàngale yàlla rëbb na ka koy naan ka koy jaay ak ka koy nal ka koy defar ka koy yenu di yóbbu waaw moo tax boo boo yoree taxi wala nga yor oto wala da yenu ci sa bopp ak noo mën a yóbbooy bagage ka yóbbul ñu sàngara si ñu fay la xaraam yow jullit bi bañal kaay bokk ci usine bi di defar sàngara xaraam yow jullit bi bañal barab bii lañ koy jaayee baar bi kaay fii di jaay wala di fi liggéey yi nga xam ne barab boo xam ne loolu rek ko tax a jóg yow jullit bi xamal ne boo ci duggee yaa ngi dugg ci lu xaraam contrat la boo xam ne da ko war a wattandiku bokk na ci euh, muqaddaraat yi xeeti drogue yi yii soppi xel yooyu ba tey jullit da ko war bu amee xam-xamu liggéey ci dara it du dagan mu liggéey ci waaye mbooleem ñu bëggee gàttal mbooleem barab yi nga xam ne rek ak mboole yi ñuy jëfandikoo te ab jullit mënu koo jëfandikoo ci anam gu dagan yooyu jullit waru cee signé benn contrat waru cee bokk bokk na ci yenn hôtel yi hôtel barabu noppalukaay la barabu daluwaay la ci gan gu ñëw amul fu mu dal li feeg loolu la dara nekkute xam ngeen ne ñi xaji màkk sax ñi ñëpp buñ demee ci ay hôtel la ñu dal boo demee Kaaba ga la ko wër yëpp ay hôtel la waaye hôtel ci yenn réew yi la ca ëpp rek mooy barab boo xam ne fo kat ak mooy yàlla ya mu des nag yow mi fa bëgg a liggéey boo demee lan nga fay liggéey bu dee liggéey bu baax la liggéey bu lislaam bañul bu la pour hôtel yóbbaale ba nga jàpp ne moom taxaw fa ak def fa dara dafa xaraam déedéet liggéey fa liggéey bu lislaam di bañ liggéey boo xam ne daganul cib jullit mooy li xaraam waaye bu dul liggéey bu xaraam defee ko ci hôtel baag defee ko ci beneen barab dara nekkut ci naka noonu barabu liggéeyukaay yi nga xam ne seen liggéey daa jëm ci carte am na ay societé yu mag ci biir réew mi bitim réew ñoo xam ne seen liggéey yëpp mooy carte ak tur wu ñu ko mën a tuddee nag jamono moo toll foo xam ne bari na yu lislaam xaraamaloon ci yow jullit ab yar ak jàng diine tax nga sib loola bëggoo ko xalaatoo koo jëfandikoo ñu indil la ko ci yeneen tur solal ko yeneen mbubu nga mën koo jëfandikoo te doo ko yëg waaye mbooleem société yi taxaw ci carte ak nu ñu leen mën a tuddee buñ la ci bëggee liggéey loo yow jullit ngir fay la xamal ne lislaam tere na la loolu bul ko nangu naka noonu barabu liggéeyukaay yi nga xam ne dañuy liggéey ci riba na tudd ay banque wala ay crédit mutuel wala tur wu ñu ko mën a tuddee yow jullit bay liggéey ca banque ba ci barabu liggéeyukaay ba xoolal li ngay liggéey lan la bu dee riba da cee bokk yàlla rëbb na kii lekk riba rëbb na ka koy lekkaloo riba ka koy bind ka koy seede ka koy signé loolu jullit da ko war a wattandiku kem nam te xam ne du liggéey bu daggan kenn warul la cee fay dara barabu liggéeyukaay yi nga xam ne it seen liggéey mooy dañuy yàq marché bi dañuy fekk ay marchandises yu ñu xam ñuy defar ay faux yu niroog moom di ko jaay ci yeneen njëg yu yomb nga xam ne balaa ngay ñëw ci diine sax xëccu euh, gi ñuy xëccu nit ñi di leen nax di leen jaay lu baaxul wan leen ne lu baax la waaye loi yi doxal réew yi ci àdduna yépp dañ koo tere buñ la ci jàppee jafe-jafe mën na laa dikkal lu mel noonu même boo ci amoon xam-xam ku la ci bëgg a liggéeyloo xamal ne lu xaraam la lislaam du nangu nga liggéey ci kon ijaara njariñ li nga sa xam-xam yow wala sa man-man bu dee doole la wala xal xel la wala xarala la moo tax ñu jël la ne la liggéey ñu fay la xoolal liggéey boobu bu dee yu xaraam yi ñu tudd wala yu ñu tuddul yépp daganul ci yow nga di ci bokk bokk na ci charte yi ijaara bu mu doon ak jaamu yàlla goo xam ne far la kenn du luyee nit ne ko kaay ma di la fay nga di ma jullil wala ma di la fay pour nga wooral ma ibaada mutaayina kenn du ci ijaara kenn lu mel ni xaj màkk te yow lottu nga am nga ak wéradi wala ak tële ba mënoo jóg dem xaji waaye am nga alal ju mën a dem ñëw nga fay kenn mu dem xajali la loolu du sax la ci lislaam yonent bi ay saxaabam laaj na laaj nañ ko ko mu ubbee leen ci def leen ko dara nekkut ci waaye lu mel ni julleeg woor eh, yeneen jaamu yàlla yoo xam ne ay fardu ayni la mënoo fay kenn ngir mu wut la ci dee jaamu yàlla goo xam ne it wala jëf du baax joo xam ne du fardu ayni loolu ñu ijaar la ci li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi mooy aayul masalan jàng alquran dañ la fay ngir nga wàccee benn kaamil wala nangami kaamil loolu ci sharia doonub lu xaraam te lay tegtale ak daganam ay xadis ak i asar yu bari la bëgguñ cee guddal kon ci gàttal ngir ijaara taxaw ponk yaa ngi nii dana am alxaaqidaani muy ñaar ñu ko seq kenn rek bu ijaara dana am asiixa muy waxtaan wu dox seen diggante ñoom ñaar ba juboo nañ am ajru muy fay gi nga xam ne moom lañuy fay kii ñuy liggéeyloo wala kii ñuy jël ay bagaasam amit manfaa muy njariñ li nga xam ne moo tax ñu fay la wala bagage bi ngay joxe njariñ li ci waa ji bëgg a jariñ ñeent yi bu dajee mooy arkaanul ijaara léegi mu ñëw ci aqsaamul ijaara ijaara ay xaajam ñaata xaaj la aqtaamul ijaara min xaytu nawul maxalli al maxquud alay borom xam-xam yi dañoo dëppoo ci ne ijaara ñaari xeet la dafa ñaari xeetu ijaara yu am muy ijaaratul ayaan ak ijaara boo xam ne ijaara ala manaafi al ayaan ak ijaara ala manaafi al insaan waaw ñaar yi buñ ci la lii ñuy wax di leer dëgg-dëgg mooy lan ijaara ala manfaatil ayaan mooy ay jëmm masalan yow da ngaa soxla woo kër goo dëkk nga luwee kër ngir dëkk ci da ngaa tukki wala da ngaa bëgg bagaas luwee borom charrette bi wala borom oto bi mu luwee oto bi ngir yóbbu say bagaas ngir tukki dem te ñëw loolu mooy ijaara moo xam ne ala manaafiil ayaan la nga xam ne du jëmmi nit ki du jëmmi nit ki moom ngay amal contrat waaye bagage yi nit ki këru këru waaji la wala ab bitigam la wala ab magasin la wala ay toolam tool toolam nga luwee tool bi suuf si nga soxlawoo ngir bay wala suuf si nga soxlawoo ngir denc say bagage wala kër gi nga soxlawoo ngir dëkk wala place bi nga soxla ngir liggéey loolu mooy ijaara ala manaafi al bokk na ci ijaara ala manafil ayaan war waru waaye yi ñuy war lu benn daaba benn fas wala benn mbaam nam amee woon ca cosaan te ba léegi mi ngi am doonte jamono indi na yeneen waruwaay yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ci bunta luyee moom it kon ijaara ala manfaatil ayaan mi ngi noonu ñaare bi mooy ijaara ala manfaatil insaan du otoom wala këram wala suufam wala ab bitigam ngay luwee waaye jëmmam jëmmi jëmmi waa boppam am na man-man bu nekk ci moom moo xam daa mën a faj nga bëgg a wax ngir mu fajal la aji feebar ji wala daa am xam-xam daa mën a jàngale alquran nga bëgg a wax moom ngir mu jàngaleel la wala beneen xam-xam wala yu mel noonu loolu mooy ijaara ala manfaatil insaan kon gis naa ñaar yooyu muy yaa ngi luye benn jumtukaay ngir jëfandikoo ko wala yaa ngi luye jëmmi nit ngir am liggéey bu mu la liggéeyal ijaara bi nag dañ koy def muy ñetti xaaj benn bi mooy suuf ak lépp lu laal ci suuf lu mel ni ay kër la wala ay tool la wala ay magasin la ay bitig la loolu euh, benn xaaj la ñaareel bi mooy loo xam ne ay marchandise la luye ay marchandise masalan ay yére yu cher dangay ngay fay ngir mu jox la yére bi nga sol boo ñëwee delloo wala ay takk takkaay ay takkaay da ngaa am xew soxla woo takkaay dem fay ko nanga mu lee la ay takkaayam wala ay ay ay bool comme ni ñu amee ci xew-xew yi léegi ci màggal yeeg ñu ni mel ay ay ay rajo ay chaise yu ñuy toog ay matelas ay toggukaay ay ci nekk ay bool ak yu ni mel loolu benn xaaj la moom it ci ijaara ala manaafi al yooyu yëpp ay jëmm la yoo xam ne soxlawoo nga ko bëgg nga koo jariñoo nga wax borom bu ngeen jubóoyee nga fay ko mu jox la bagage yi boo jariñoo ba noppi delloowaat ko ay bagage am beneen bi muy ijaara alal amal nga xam ne nag moom jëmmi nit ki jëmmi nit ki ci boppam moom ngay waxal masalan da ngaa bëgg mu mu móolal la nga jubóog moom ci móolal ma ma fay la nàngam wala tabaxal ma ma fay la wala ñawal ma ñawal ma yére bi ma ma ma fay la ak mbooleem liggéey yi nga xam ne nit dana ko liggéey loolu mooy li sëriñ bi doon wax léegi ne ijaara kenn mënu tee mucc kenn rek mënta dund ci kaw suuf di mucc ci ijaara jamono ju nekk am na xam-xam bu nekk ci yow wala man-man bu nekk ci yow nit ñi di ko soxlawoo nga di ko joxe am luñ lay jox wala am na xam-xam man-man bu nekk ci keneen nga soxlawoo ko yow nga soxlawoo ko am looy joxe ngir jot ci xam-xam boobu ngir jot ci man-man boobu loolu kenn muccut ci baykat bi jamono ju nekk day jàpp ay surga juboo ak surga bi ci na ko bayal ci nawet bi ñu waxtaan ba jubóo ñoom ñaar pas-pas bi bu respecté charte yi l'islam bëgg day doon lu dagan dara nekkul ci waaye léeg-léeg ñu def ko ci anam goo xam ne da koy bañ saa boo xamee ne surga bi jubóo na ak njaati ji ci nañ danga may bayal bu nawet wàccee ma fay la nàngam jubóo nañ ci ñoom ñaar loolu ijaara bu dagan la waaye surga yu bari tey ci wàllu mbay dañuy dem ñu jox leen aw jiw ngir lan ñu bay seenu tool njaati gi it am ay toolam am bés yoo xam ne ci lay bay toolu boppam yenn bés yi muy dem ci toolu boroom kër gi loolu li muy yaatu yaatu ak li muy bari bari ci réew bi bokk na ci xeeti ijaara yi sharia islaamiya tere sëriñ abdourahman abdou qudus yàlla na ko waaye masala mi daana ci taxaw di ko fàttalee fàttali gi mooy bu fekkoon ne surga bi da nga koy jox aw jiwoom ne ko sa jiwoo ngi nii bàyyi koog moom bu ko neexee maye bu ko neexee jaay bu ko neexee def nu mu xam mu def nag mu war laa liggéeyal lam la war liggéeyal ba nawet ba jeex loolu mu waa dagan na dara nekkul waaye da nga koy jox jiwu ba noppi téye ko ci jiwu moom faw da koy bay mu doon ab toolam loola mooy la yàq jëflante ga du baykat bi rek sàmm bi ñi ñi yëngu ci jur dañuy soxlawoo jamono bi nekk ku ñu waxtaanal mu di leen sàmmal jur gi ngir ñu di ko fay kon dañuy soxlawoo ijaara ci wàllu sàmm ki bëgg tabax këram bu amee alal ji amul xam-xamu tabax am na ñu jàngi woon maçon ba am xam-xam bi soxlawoo na ijaara waxtaan ak ñoom ngir fay leen ñu tabaxal ko kon ijaara ñu noonu foo laal ci dund gi rek danga nga fay fekk da ko fay fekk gis ne lu mënta ñàkk la jàngalekat yi jàngalekat yi boroom daara ju nekk borom école bu nekk mi ngi ijaaraak ay jàngalekat maanaam mi ngi waxtaan ak ay nit ngir nañ ko jàngaleel ci daara ji ci école bi bu weer dee mu fay leen nangam wala bu at mi jeexee mu fay leen nangam kenn du boo ak ñoom naka noonu euh, fajkat bi fajkat bi jamono ju nekk rek am na ku feebar wala ku feebar feebarle di ko ñëwal di jubóog moom ci fajal ma feebar bi wala fajal ma malaat bii ma fay la nangam ñu juboo ci loola loolu bunt la boo xam ne buñ ko toppee ci lañuy gis ci anam gu leer ne képp kuy dund mënoo mucc ci ijaara kon xam ay àtteem day bëgg bokk ci fardu ayni yi ndax lu ñuy dund la ijaara bii ñuy wax muy ala manfaati insaan doomu aadama bii signé contrat bi war a liggéey ab liggéey dañ koy def muy ñaari xaaj dafa am ajir boo xam ne xaas la xaas lu mat a ràññee am ajir boo xam ne mustarak la ajir xaas mooy waa ji daa jubóog yow ci man ngay liggéeyal nga xam ne moom day mel ni semaine bii nga war koo liggéeyal wala weer wii wala at wii wala contrat bi bu dee fukki at ak nu mu sañoo cee def la neen moom moo jënd sa xam-xam moo jënd sa man-man moom rek nga sañ a liggéeyal moom moom rek nga saña a liggéeyal bokkewul boo xam ne ki ki nga signal contrat lim soxla ci yow du jamono ji waaye dafa am benn liggéey bu mu bëgg rek defal ma liggéey bii boo ko defee ci benn fan ak ci benn ñaari fan ak fukki fan ñoo yem contrat bi nga signé ak moom du tee nga mën a signé ak keneen wala ak ñeneen yeneen contrat ndax mën ngaa boole yépp di ko def ci benn jamono kon ajur xaas muy euh, masalan koo xam ne dafa jël ab jàngalekat waxtu yu jàng yi ay waxtoom la moom moo ko moom jàngalekat bi suñu fee bayu jàngale mi nekk ci leneen ki jël ab sàmm wala baykat bu ko bayal waxtu yu liggéey yi waxtu yu dem tool yi waxtu sàmm yi ajir bii sañul faa bàyyi liggéey ba di nekk ci laneen kii jël ay ñawkat yu ko ñawal ngir da leen fay bët bu set wala semaine bu jeex wala weer bu jeex nangam ñawkat yooyu it waxtu wi fii ñeneen moom lañ moom lañ koy liggéeyal sañu ñoo bàyyi liggéey ba di nekk ci laneen kooku la ñuy tuddee ajir boo xam ne xaas la ajir mushtarak mooy koo xam ne moom contrat bi mu signé ak yow du sa waxtu lay jël du ay fan wala ay weer lay jël ci yow waaye dafa am loo bëgg rek waa li ma bëgg daal mooy nga defaral ma ab lal wala oto bi baam laa bëgg nga defaral ma ko bu ngeen waxaalee ba juboo mën naa am defar gi tey lay lépp di mat mën naa am dara am ñaari fan ñett wala mën naa am semaine wala weer sax door a kooku kenn terewu ko ci diggante yi mu lay liggéeyal bu amee yeneen liggéey yum ko mën a booleel mu boole koo moom te yow mi waxaale woon ak moom ci contrat bi doo ca sañ a wax dara ndax ajir la boo xam ne mushtarak la mi seq na ko ak yow seq na ko ak keneen muy contrat bu ñu nangu bokk na ci euh, ni fuqahaa yi jàngalee ijaara ginnaaw ñaari xeet yooyu nga xam ne dañuy xool jëmmi ajiir bi ci boppam dañ koy defaat ñaari xaaj yoo xam ne nag du ajiir bi la ñuy xool waaye ijaara gi muy muy muy location bi dox seen diggante yéen ñaar ndax muayyana la wala mawfuufatun bi zimma la muayyana mooy dañ na doon lu ñu ràññale ci misaal da ngaa bëgg a luyee benn oto waa ji mi ngeeg parking mi ngeeg ay oto yaa tànn oto bi nga bëgg ne ko sa oto bii laa bëgg nga luyee ma ko ngir ma dem ci barab sàngam wala sa kër sàngam kër gii la ma won ba nga gis ko moom laa bëgg nga luyee ma ko wala takkaay bii wala yére bii wala sa dama am xew-xew sa tànt bii wala xayma bii ngay defar wala rajo bii jëmm ji muy luyee ci yow da ko ràññale mu doon lu leer lu mu xam yow mi koy luyee nga xam ko loolu mooy ijaara boo xam ne muayyana la am beneen boo xam ne nag moom lim bëgg rek mooy nga luyee ko oto boo xam ne da koy yor semaine wala weer wala at ban oto la yoonam nekkut ci yow mi koy indil oto bi yaay seen oto bu bu ko bu la neex nga ci yow kër ay takkaay wala jumtukaay yu ñu doon tudd te ràññaliwut la ne la bii laa bëgg dalaa bàyyee mbir ma rek foofu li leen tàqale ñoom ñaar. mooy ijaara muayyana bi nga xam ne yaa ko laal nga ko kër gi laa soxla woo wala oto bii laa bëgg wala fas yi nga may luye bu ca jafe-jafe amee masalan oto ba paan na wala fas woo mënatu la dem ijaara ba daf fay yem lan ca jëfandikoo woon nu mu toll loola ngay fay te mbir ma jeex bu doon bee ñu wax nag moom moo tànn fas wa ko soob wala oto ba ko soob moo tànn bagage ba ko neex mu indil la bagage boobu bu amee problème day dem indi beneen boo xam ne mooy mottali contrat bi mu signé woon ak yow loolu moo teqale diggante ñaari ijaara yooyu euh, bokk na ci bokk na ci àttey ijaara bokk na ci àttey ijaara nañu xam ne contrat la boo xam ne koo ci jëflanteel na doon koo xam na doon koo wóolu ngir lan lan koy liggéeyloo bu ca ak yàqu amee yow mii liggéeylu da ngay muñ waaw ci misaal kii xam-xamam dafa màcc ci tabax wan nga ko li nga bëgg a tabaxlu waxaale ngeen ba juboo ma ngay tabax ba mu yàgg yàllaa xam lu xew lam liggéeyoon yépp marché daanu nga xam ne la nga dépassé woon ci ciment ci ay bagage yépp yàqu na ndax daf laa war a fay déedéet warul laa fay moo tax ijaara koo koy seqal rek na doon koo gëstu ba mu doon ku wóor mu wóor la ne li nga koy liggéeyloo xam na ko man na ko te kuy jubal la ndax bu jafe-jafe amee yow yaay muñ moom du la fay lu dul lu dul nag wóor na ne moom daa gàttañ lu ca mbir ma def ca lu mu war a def wala jalgat na teg na mbir ma lu jaaduwul tabax bi lim ci waroon def defu ko ci kooku ak càgganteem bu tax na bu ca dara yàqoo moom dalaa war a fay wala oto nga ko luye mu sëf ko lu mu àttanul wala mu dawal ko xel yu jaaduwul yu mel noonu bu ca amee moom dalay fay bu fekkee nag yooyu yëpp amu ci daa luye oto bi rek teg lu jaadu di daw ci xel wu jaadu oto ba am paan euh, ba yow mi joxe woon oto bi ba tey yow yaay muñ waaye du caageen da nga ko war a fayeeku dara kon yi ñu war a xam ci axkaamul ijaara bokk na ci ajiir bi li nga teg ci loxoom ngir mu jëfandikoo ko loola bu amee paan wala mu am benn yàqu yow mi joxe woon da ngay muñ bul séentu ci moom mu fay la dara waaye ajiir boo xam ne nag moom daa nekk ci palaasam wa sunnaaxu daaminuuna li ma xaabu alayhi amiluhu bi ajrin aw bi xayri ajrin maanaam képp koo xam da ngaa am sa atelier da ngaa toog sa place ki bëgg a liggéey lu mooy ñëw indi ab portable am ne la bi dafa paan damaa bëgg nga defaral ma ko wala ab teleem wala ab frigo wala ci sa garage nga nekk yow di mécanicien di électricien mu indil la otoom ne la defaral ma bagage bii moom yow mu ñu ko teg ci sa loxo yaay ki ko garante da nga ko war a delloowaat ci loxoy borom boo sàgganee ba leneen xew ca ñëw portable bi dañ koo jaawaleeg dañ koo sàcc da war a fay télé bi nga fi indi eh, jël nañ ko wala leneen xew na ci yàqu na da nga ko war a fay loolu beneen àtt la ci biir ijaara te mooy borom place rek képp koo xam ne sa place nga nekk ki nga seqal liggéey bi mooy déplacé wu ñëw andil la jumtukaayam pour nga liggéeyal ko kooku lum la jox faxel ba delloo ko ko bu ca leneen xewee da nga ko war a fay moom la ibnu abi zeydin te ko tënkoon ca risaala wa sunnaaxu daaminuuna li maa xaabu alayhi sunnaaxu mooy mboolem ñu samp seen bokku nekk ci ay place di xaar ay client ñëwal leen ngir indi leen seen jumtukaay dafa bokk ci masala yi nga xam ne borom xam-xam yi ngir mi dañoo istixsaan ne kooku lu sanku ci ay loxom rek war na koo fay waaye moom it nag moom it boobu ñu teg ci luñ ko indil bu ko sànkee wala mu yàq ko wala ñu jël ko na fay saa bu saxee ne sànku mbir mi bàyyeekoowul ci gàttañoo bàyyeekoowul ci càgganteem masalan ak lakk xew rek ñëw lakkaale place ba la fa nekkoon yëpp lakk ba jeex ñëpp xam nañ ne noonu la demee kooku kenn du ko fayloo dara wala wóor na ne ay sàcc ñoo ñëw dugg ci marché bi wala dugg ci place bi jël la fa nekkoon du ak gàttañ loom du càgganteem kenn du ko fayloo dara kañ lañ koy fayloo mooy bu dee mbir ma nam demee nam sànkoo nam yàqoo wóorut ñu dara leerut ñu ci wala xam nañ ne ak càgganteem la ak gàttañ loom la bu fekkee loolu amut ci ñu euh, maanaam bu bu wóoree ne ak càggante am na ci wala xamuñu nam demee kooku lañuy fayloo bu leeree na nag mbir ma dafa sànku sànku bu bàyyi koo faneen ci lu dul gàttañ loom kooku kenn du ko fayloo dara ci àttee ijaara ba tey léeg-léeg nit luye lu mel ni oto ngir dem dëkk sàngam ñu jox ko oto bi mu romb fa mu waxaale woon fa mu waroon dem dem fa ne wala mu luye ngir ne damay yóbbu saakoom nàngam ñu jox ko mu teg ca ñaari saako wala ñett loolu ak jalgate la boo xam ne yow mii yokk distance bi nga waxaale woon wala diisaa li nga waxoon ne moom ngay yóbbu nga teg te lu gën a diis li la war mooy li nga dolli masalan da luye oto ngir dem ndulo ñu jox la oto bi nga dem ba njaareem gannaaw boo fayee diggante Touba ak ndulo nañu xool diggante ndulo ak njaareem it luyaatu la nga boole ko ci gi da ngaa luye benn ton ñu jox la nga yóbbu ñaari ton fayal njëgu ñaari ton yi loolu mooy ak maanu mooy njub mooy atteb sharia bu fekkee nag ba nga yokkee dox ba wala nga yokk diisaayu la nga waroon a jël aw fas la doxee na ca fas wa jëlee ca ay feebar wala doxee na ca dee wala ab oto la teg nga ko lu mu attanul ba na mu yàqu dañuy tànnaloo ki la joxoon jumtukaayam bi nga teg ko lu jaadul ba ak yàqu am ci bu ko neexee mu ne man sama fas wi wala oto bi ba ma la koy jox dara tëkku ci mënoon naa jar nangam yàq nga boo soxlaatuma oto bi delloo ma njëg te bu ngeen demee ci yoon yoon àtte ci sharia islamiya da nga koy delloo njëgu oto bi te jël sa oto ñoo xam dafa moom bu ko neexee it mu muñ yàqu gi te xool lu toll ni la ca dellu rek la la nga ca dolli yi nga fay ko lu ñuy toll loolu bokk na ci àtte yi mata bàyyi xel ci ijaara muy ijaaratul ayaan jëmm ju am njariñ moom nga waxaale borom mu jox la nga war ko def leneen lu bokkul ak la nga waxoon ak moom loola nga dolli ca danga ko war a fay waaye ba nga yokkee jafe-jafe am ca bu ko neexee mu jaay li mbir ma ca lam du waroon a jarat ba jafe-jafe amagul bokk na ci àttay ijaara bi nga luyee benn jumtukaay ngir ay fan nga jëfandikoo benn fan doyal nga ci ñetti fan yi ci def nga xam ne yaa ko moom yaa ko fay bu la neexee nga luyoo ko keneen wala dangaa luyoo oto bi ngir dem Dakar dem ba Jurbel sa soxla jeex nga bëgg a wàññeeku bu la neexee nga xool ku am soxla diggante Jurbel Dakar nga luyoo ko oto mu dem te ñëw ndax yow loolu nga waxaale woon te fay nga ko ba noppi sa xàq la sañ nga koo jaay keneen loolu noonu la ko fuqaaw yi di jàngale ba tey ci ijaaratul ayaan wala ci ijaaratu manaafi al insaan saa booy waxaale ak nit ngir mu liggéeyal la nga fay ko wala yow yaa koy liggéeyal mu fay la fay nga naka lay demee lislaam da leen koy bàyyee yéen ñaar da koy bàyyee nit ñi ak seeni aada am na ñoo xam ne seeni liggéey weer wu nekk par weer mooy li gën a bëri ci àdduna lañuy fay am na liggéey yoo xam ne bët bu set boo wàccee ñu fay la la nga war a liggéey muy mu yaawoo ma wala mushahara par semaine la lay fay wala par at la loolu lu ngeen ci juboo rek islaam fekk na leen ci kon euh, ci buntab ijaara ci buntab euh, jaala doon nañ ko wax ci njëlbéen ne daan ci ñëwaat beneen xeetu luye la bu xaw a niroog li ñuy wax te xaw moom kii àtte al jaala mooy mbooleem masaayilu ijaara yi ñuy wax nga xam ne nit ki gis nga ci moom njariñ loo soxlawoo sañoo wax ak moom fay ko ngir jariñoo njariñal li nekk ci moom wala am na jumtukaay boo soxlawoo nga waxaale moom fay ko ngir jël jumtukaay bi eh, jëfandikoo ko ci li nga ko soxlawoo bu doon liggéey la boo xam ne ak sottee mu wóorul loolu la fuqaaw yi di tuddee joxul ci misaal da ngaa bëgg ab teen teen am na koo xam ne xam-xamam ak man-manam mooy mën naa bënn mën naa gas bënn ab teen ndax man nga koo ijaara kay ma fay la nga gasal ma ab teen déedéet contrat bii dox seen diggante yéen ñaar moom la ñuy tuddee joxlu joxlu mooy lan ab teen laa bëgg boo ma ko gasalee ma fay la ñaata ngeen waxaale ba juboo waaye xam nga gas ab teen daa wóoru kii mën naa gas ba am fukki meetar rek jot ab ndox waaye mën naa gat fukki mètre juróom ñaar fukki mètre ak ba tàyyi bàyyi du jot am ndox lu mel noon la ñuy moo tax euh, balam koo fay moom day fekk mu liggéey ba sotti wala shay'a lahu illa bi tamaamil amal jaala euh, dañ ko misaale ku ma bënnal bi ma fay ko nangam wala sama fas wa réeroon wala xar ma réeroon laa bëgg ku ma ko seetli boo ko gisee indi ko ma fay la nangam yooyu mën na koo seeti dem gis ko léegi comme mën na koo seeti ba déwén du ko gis yooyu la ñuy tuddee joxul bu doon seet ba déwén gisul dara doo ko fay dara bu ko indee nag nga fay ko la ngeen waxale woon kii gas teen bi bu gasoon ba gas téeméeri mètre da jot la ndox doo ko fay dara bu bañ ne euh, jot am ndox nga door koo fay loolu moo teqale diggante jaala ak ijaara moom balaa muy yeeyoo ak fay moom mii liggéey ci joxlu day fekk liggéey ba sotti bu liggéey ba sottiwul amul dara waaye li mat leeral foofu nag da nga koo gas loo teen bi mu gas ba sonn amul am ndox mu bàyyi ñu ne la amiloo ko ak fay ngir la ko doon liggéey defu ko nga bàyyi teen ba noona wala nga suulaat ko mbir ma jeex na amiloo ko dara bu dee jëli nga keneen wala nga jóol sa bopp nag mottali teen bi ba am nga ndox foofu mu ñëwaat nga fay ko lu toll ni lam gasoon ndax yow la nga ci def rek ak mottali la moo tax euh, loolu bokk na ci at yi nga xam ne yu ñu war a xam la ci bunt bi nga xam ne mooy joxlu joxlu nii ak ijaara bu dee joxlu cosaan li mi ngi bàyyeekoo ci alquranul karim ni ijaara bàyyeekoo ci alquran ca diggante yonent yàlla Moussa ak yonent yàlla Shuayb borom bi daf ñuy nettali ca suuratu Yuusuf keroog bi nga xam ne mbokki Yuusufa ya dem nañ ca kër buur ba te yuusufa def ay pexe ngir jël téye mbokkam bi ba leen xamalee ne dafa am ci seeni bagage lu manqué wali man jaa bihi ximlu bairin wa ana bihi zaid waaw dañoo réer la dara ku ñu ko indil rek ñu jox la gëléem ak sëfam loolu mooy jaxala ndax lii réeri ki jóg di ko seeti mën na koo seeti gis ko léegi comme mën na koo seeti diggante bi yàgg dox ba sonn du gis dara mooy la waa Màkka defoon ba tey keroog bi yonent bi di gàddaay ñoom bi ñu yégée ne yonentu dem na sallallahu alayhi wa sallam ñu ne buñ ko seetaanee mu dem dana am yu doole dana ñëw dal suñu kaw dana ñu indil ay jafe-jafe tax ñu war seeni fas war seeni gëlëm dugg ci àll bi di ko seeti ne képp ku ñu ko mën a indil xayyan aw mayitan moo xam mi ngi dund wala faat na téeméeri gëlëm mi ngi la fi xaar miatu naaqatin li man ataa bi muhammadin hayyan aw mayitan loolu mooy mooy joxlu gis nañ ne moog ijaara duggante nañ ba bépp masalaam joxlu masalaam joxlu mii ñuy wax moo gis rek bu la neexoon nga def ko muy ijaara mbir ma la koy teqale rek mooy waxin wa ci misaal yow mi bëgg teen mën ngaa waxtaan ak gaskatu teen bi ci kaay nga gasal ma mètre bu nekk ma fay la nàngam muy gas rek lu mu gas ci mètre nga fay lu toll noona ba ba muy jot ndox loolu ijaara la ijaara la waaye bu dee joxlu la du dama lay fay ay mètre teen laa soxla boo bënnee ma fay la am ndox ma fay la boo bënnul du ma la fay loolu la ñuy tuddee joxlu li fekk amul ndox wuroo koo fay dara waaye ci joxlu it ñu xam ne wuroo ko wutal ak da nga koy bàyyi rek mu liggéey ba mu bu sottee ñu xam ne sotti bu sottiwul sottiwul bul ko tënk ci benn ab boo ko tënkee ci ab rek mbir ma day xaraam dootul dagan ci ijaara ba tey wax nañ ne li dàqale ijaara ak kiraaw mooy yii tuxu wala yi ñuy war yooyu la fuqaaw yi di tuddee kiraa da ngaa luwee oto oto gannaaw gi la ko jamono indi waaye ca jamono yooya ay gëlëm la woon aki fas aki ay barkel aki mbaam yi ñuy war loo ci jëflanteeg nit mu takkal la charetam wala mu jox la fasam ngir nga fay ko nangam loolu kiraaw lañ koy tuddee lu tey nag xew na léegi ay ay ay moto yoo xam ne seeni borom ay cag-cag lañ leen di wax dañuy yóbbu ay bagage dañuy yóbbu ay nit wala dañuy jële ay nit jëlee ay bagage ak yóbbu ay lettre yu ni mel ngir ñu fay leen loolu ci buntab kiraaw lay dugg moom it ay pas-pas la yoo xam ne yu dagan la ci charia islamique li fekk li ngay liggéey liñ lay def loolu lu dagan la bu dee ay oto la it waxuñu oto bi nga xam ne yow yaa bëgg tukki ngir looyee oto dem ñëwaat waaye da jënd sa oto jox ko benn chauffeur ngir muy liggéey ci oto bi loolu pas-pas la bu tasaaroo ci réew mi mën naa am ci anam gu dagan comme am na nu ñu koy defee mu doon lu xaraam pour mu dagan bu dee ijaara la nga jox oto bi chauffeur bi oto bi lu mën a doon sas ko aw sas bët bu set ma la jox nàngam moo xam nangam jooju la am wala li mu am matu ko dana ko liggéenti ci faneen bu amee lu kopp loolu bénéfice am la loolu ci buntab ijaara day doon pas-pas boo xam ne sharia nanguwu ko ndax xarar muy ak lënt gi am ci biir moom mi ngi xëy xamul ñaata la war a wàccee tey te yow sas nga ko li mu war a wàccee ba noppi loolu doon kumpa ci yéen ñaar ñëpp saa bu amee ci pas-pas day daal di doon lu xaraam kon gis nga liggéey bu mel noonu pour mu baax day bàyyi buntab ijaara dem ci kiraaw maanaam chauffeur bii jël oto bi dafa luye oto bi ci yow maanaam yaa jël sab taxi benn waay boo xam ne mën naa dawal chauffeur la luye oto bi ci yow warlul la weer bu jot wala semaine bu jot wala bés bu jot danaa la jox nàngam nga xam ne oto bi danga koo jox muy ab otoom kem la ngeen juboo bu dee ay fan la wala ay weer la nu mu toll rek moom nag lam la war a fay mooy la nga waxaale moom ba juboo bu oto bi amee jafe-jafe te du ak gàttañ loom du ak càgganteem du da koo teg lu mu lu mu ko war sa teg yow borom oto bi yaay muñ te defar sab oto bu dee ci anam bii lañ ko jëflantee loolu anam la bu dagan waaye bu fekkee oto bi yow borom yaa ko téye muy sa oto luye woo ko ko bal da nga koo luye moom xam-xamam muy ak mën a dawalam moom nga bëgg a jël ci moom nga jox ko oto bi ngir bët bu set bu wàccee na la indil nangam wala weer wu dee na la indil nangam nangam joo xam ne ndax dana ko am wala du ko am wala dana am lu ko ëpp leerul fi kenn ci yéen yéen ñaar loolu day bokk ci jëflante yi nga xam ne sharia islamiya da koy tere bokk na ci pas-pas nit ñi di ko jëf ci jamono maa ngi wax léegi bëri na lu lislaam tere woon jullit boo ko wax seexlu na ko xalaatu koo def waaye solal nañ ko beneen mbubb tuddee ko beneen tur di ko def la jullit mu di ko def bu yëgee ak bu yëgul saa bu ijaara amee ala manfaati insaan yow sa xam-xam wala sa doole wala say pexe sa xarala moo tax nit wax ak yow fay la nga liggéeyal ko nangam na doon liggéey bu sharia daganal ci yow am na liggéey yoo xam ne loo ko man man lislaam da koo xaraamal ci yow kon bu la nit fayoo ngir nga liggéeyal ko ci loolu yaa ngi def lu xaraam mooy bokk na ci tey li ñuy tuddee nervi nervi ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay xeex moo xam dañoo nekk ci dëgg wala nekkuñ ci dëgg wallaahu aalam jël benn waay ngir am na doole mën naa xeex jox ko ngànnaay di ko fay nangam ngir mu dem di xeex yi xeex boo xam ne moom dara nekk lu ko ca mën naa am sax ki koy fayloo moo jalgati moo nekk ci tooñ ki koy fay di ko xeexloo loolu du du du ijaara même buñ ko tuddewul ijaara ijaara la waaye du ijaara bu dagal ab jullit kañ la war a jël ngànnaay rawat na di xeex mooy jihaad daa taxaw walla am na doole ju jugee fële bëgg jël bakkanam bëgg jël alalam mu taxaw ngir aar boppam ngir aar alalam fii rek la lislaam mayee jullit mu yëkkati ngànnaay waaye du jihaad du dangay défendre sa bakkan wala sa alal kenn moo am jafe-jafe di la fay ngir nga xeexal ko yow te xeex boo xam ne rawat na ak xërëj maraj la gu jaxasoo goo xam ne ki ngay songu di dal ci kawam a gaañ mën naa am yoonum nekkul ci bokkul sax ci xeex bi loolu lu mata ndiku la duñ ko tuddee ijaara waaye sa dëgg-dëgg dafa bokk ci pas-pas yi nga xam ne lislaam da koo xaraamal ndax yaa ngi ijaara di luwe sa doole sa mën a xeex ci loo xam ne daganul nga di ca xeex boo ci gaañee ak buñ la ca gaañee yépp yaa ngay bëgg a dugg ca la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ida ltaqa almuslimaani bi sayfayhima falqaatilu walmaqtulu fi nnaar kon ay masala yu yu yu la mel na ne am na ay laaj yu firot laaj bi sëriñ Fallou indi léegi mbokk mi li mu laaj muy film yi hmm. waaw dafa wax ne ndax théâtre yi wala film yi cinéma yi ndax dagan wala dafa araam mutlaqan théâtre amul benn àtte ci lislaam buñ naan lii mooy àtte théâtre dagan na wala xaraam na wala sib nañ ko déedéet dañuy xool kii théâtre lan lay théâtre bëri na ci théâtre yi loo xam ne am njàngale la yeete la la ca nekk yépp lu baax la loolu def ko dara nekkut ci yaa ngi def lu baax mën nga ca am tiyaaba ju bari waaye bëri na ci théâtre yi ci defin wi te nañuy solo ak nañuy jaxasoo jaxasoo gay am diggante góor ña ak jigéen ña ak yi ca nekk ci ay muxaalafaat yu sharia bañ yooyu daganul ci ab julit mu di bokk même bu waxee ne daa bëgg a jàngale daa bëgg a yeete bëgg a jàngale bëgg a yeete du daganal lu xaraam bëgg a jàngale bëgg a yeete du di wane sa awra ca biti kon théâtre bi naka nga ciy taxawee ak lan nga ciy def ndax lu dagan la bu dee lu xaraam la nga jàpp ne garaawul comme théâtre la rek garaawul ah kay garaaw na lu xaraam la da nga ko war a wattandiku waaye bu dee la ngay def yépp lu baax la lu dagan la doolu dara nekkut ci loolu xew ci théâtre yi moo nekkaat ci ci ci film yépp yu mel noonu du jën mi turweeg jëf jii mooy lan waaye yow mi ci nekk lan ngay def bu sa jëf baaxee rek alhamdulilah rabbil alamin bu dee yaa ngi def lu sharia tere li ngay def lu xaraam la lu mat a wattandiku la kon ñu fàttaliwaat lii tënk liñ doon waxtaane muy ijaara ijaara mooy pas-pas boo xam ne yow jullit bi dafa am xam-xam bu nekk ci yow nit ñi soxla ko xam-xamu faj la xam-xamu tabax la xam-xamu xarala la nga mën a liggéey ay jumtukaay yu nit ñi bëgg walla xam-xamu jàngale nit soxlawoo lii nekk fi yow nga jubóog moom ci liggéeyal ko nangam mu fay la te lim lay liggéeyloo du lu lislaam bañ yéen ñaar ñu ko seq ñépp ñu ràññee ngeen ñu xam loolu pas-pas la boo xam ne bu dagan la dara nekku ci benn xaaj la ci xeetu ijaara muy ijaaratun ala manaafi al insaan man-man bi nekk ci nit ki beneen xaaj te mooy li gën a bëri mooy ijaara bi nga xam ne du jëmmi nit ki moom ngay jël mu liggéeyal la waaye jumtukaayu nit ki bagage nit ki këram la moom nga luwee ngir dëkkee ko walla ay yéreem wala waruwaayam wala palaasam wala suufam ay toolam ab otoom ab nàngamam jum mën a doon nga fay ko ngir mu jox la nàngam ji nga jëfandikoo ko boo noppee delluwaat ko loolu beneen xaaj la ci xeetu ijaara muy ijaara ala manaafiil ayaan ijaara ala manaafiil insaan nit ki nga wóolu ci xam-xamam man-manam bu fekkee da ngaa waxtaan ak moom mu ñëw di la liggéeyal fu jafe-jafe amee rek mu ñël yow miy liggéey lu bu dee moom nag moo toog palaasam yow mi soxla xam-xamam yaa ko fekki waxaale moom ba juboo ngir mu liggéeyal la wala ga indil ko sa bagage ngir mu liggéeyal la bagage boobu ak liggéey boobu bu jafe-jafe amee moom moo la war a fay ñaari qaacida yi yëpp nag saa bu leeree ne yàqute gi jalgate gii moo ko waral wala càggante gii moo ko waral kon ndax yaa ko fekke woon wala moo la fekk ci dara konteetul ak càggante am na ki càggan ba yàqu am kooku mooy fay jalgate am na kii ba am kooku moo war a fay ñu bàyyi xel ci buntab ijaara xam-xam bi nekk ci yow man-man bi nekk ci yow nit ñi soxlawoo ko di la fay ngir nga liggéeyal leen ngir nga xamal leen na doon lu diine nangu lu lislaam daganal ci yow kon lépp loo xam ne diine keneen la mbirum jaamu yàlla keneen ku dul jullit la bàyyee ko ko waaye yow jullit bi du dagan nga di ci liggéey dundoon nañ ci ay misaal lépp loo xam ne lislaam da koo xaraamal moo xam ci carte la wala ci sàngara la wala ci mboolem lekk ak naan yu xaraam yi wala liggéey ci ay jumtukaay yoo xam ne dafa ànd ak wor ak di nax nit ñi di defar mbir yoo xam ne rax nga te yeneen yu te bokkul yonent bi dafa waxoon ne man xashana fa laysa minna kii def loolu bakkaar bu mag bakkaar bu koy bëgg a génnee ci xeetu yonent yàlla Muhammad moo taxaw ci kanamam kon mboolem liggéey boo xam ne ba nga koy def yaa ngi def lu lislaam tere doonte sàngar la yow naanoo ko waaye yaa koy jàppandewal ñi koy naan ñu di ko naan carte la waaye yow carte woo waaye nag yaay jaay jumtukaay yi ñu carte yaa koy signé yaa koy liggéey lu mën a doon ak xeex la boo xam ne sa yoon nekkut te wala xeex bu jaxatoo boo xam ne la ci la ciy farata mooy jullit bi téye boppam nga dugg ca di xeex ci loo xamul yooyu yëpp rek ay contrat la yoo xam ne daganul ci yow jullit nga di ci liggéey ndax lu diine tere ci yow la boo génnee yu xaraam yi nag bépp liggéey boo xam ne dagan na ci ab jullit nga am ci xam-xam am ci man-man ci soxla bëgg laa liggéeyloo bul xool jullit la wala du bu dee jullit laa du jullit yépp sañ nga koo liggéeyal comme yow jullit yaa bëgg liggéeylu yaa bëgg luye sa kër wala sa oto kii soxla woo sa liggéey wala sa jumtukaay jullit la wala du jullit ku baax la wala ku bon la sañ ngaa jëflanteeg moom te sa yoon nekkul ci ak kéeféram sa yoon nekkul ci ak mbonam mu des rek eh, masalan lu mel ni ak kër benn waay ñëw bëgg laa luyee sa kër bëgg a luyee sa kër lan lay def ci kër gi da ko war a def ab baar di fi jaay sàngara wala da koy def ab barabu fowukaay barab boo xam ne boo ko joxee moom lan fay liggéey yépp lu lislaam tere la loolu boo ko xamee du dagan ngay jàppale ngay jàppale nit ki di ko dimbale ci ak moo yàlla wala taawanu ala ismi wal udwaan mooy taaw ci sa kanam kon kii ñëw di luyee sa kër wala muy luyee sa oto te wóor na ne ci ak moo yàlla rek la jëm moo ko tax a jóg wala mu luyee sa beneen jumtukaay bu mu mën a doon boo xam ne du ko jëfandikoo ci leneen lu dul ak mooy yàlla wóor na la daganul ngay jëflanteeg moom ci luye boobu mu des nag bu dee da koy jëfandikoo ci lu baax waaye càgganteeg doomu aadama nekk na ci moom ba léeg-léeg mu def ca lu lu lu lislaam tere du tee nga sañ a moom ci loolu xam nga ne bu doon kuy luye kër rek ñu ne kër gi da nga fi mooy yàlla kon xaraam na kenn du la ko luye néewaana bu ay nit dëkkee ci kër ren ba déwén wala weer wala semaine te defuñ fa bàkkaar déwuñ fa wala waxuñ fa lu dul dëgg wala defuñ fa lu lislaam di bañ bu doon loolu la luye mooy xaraam mutlaxan moo tax lay xaraamal lu mel noonu mooy charrun mahd kii luye kër gi li ko tax a jóg mooy ab baar la bëgg li ko tax a jóg mooy barab boo xam ne ñi bëgg mooy yàlla ñoo fi dajee di mooy yàlla moo la bëgg yooyu mooy tax ñu la du dagan nga luye ko kër gi bu muccee ci yooyu nag daf fee bëgg dëkk donte ku sàggan la léeg-léeg mu mooy yàlla ay bàkkaaram mooy yàlla mbiram boppam la diggante mook yàlla la yow sa yoon nekkut kon euh, ijaara moo kiraawu ñetteel ba jege lool di aljaala wala aljoxlu lii ci gàttal mooy seeni àtte bunt la boo xam ne bu mat a yitte wala bu mat di gëstu la ndax daa bokk ci dund gi ku mu ci ñun rek jamono ju nekk ajiir la wala mustajir la mu ngi luwee xam-xamu man-manu ñeneen wala ñu ngi luwee xam-xamam ak man-manam moom ci boppam kon yitte woo xam ko day bokk ci furudul aayaan hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira jërëjëf